tey jii de borom jërë ngeen jëf. ngeen jëf bés ci bés yi bëccëg ci bëccëg yi Sud Quotidien gis na ne ci la jëm ci altine juróom-ñetti fan ci weeru mai ubbil yéenekaay bi mi ngi ñuy xibaar ne ministre tourisme Mame Mbaye ak président bu parti Pastef di Ousmane Sonko tay la leen tribunal sa mu di procès en appel bi jëm ci lijjanti coowal Prodac li ginnaaw bi ñu leen njëkkee àtte joxoon dëgg ji Mame Mbaye Niang daanoon Ousmane Sonko ñaari weeri kaso yu mu dul tëdd ak mooy li parquet bi seet mooy nu mu mën a gàntale bokk Ousmane Sonko ci élection présidentielle yi maanaam ak inéligibilité Le Quotidien nañu Mame Mbaye bu moytul bu demee tribunal nar na fa ndax Ousmane Sonko nee na demul L'Observateur nañu démb la ko xam ci déclaration bu mu doon def doon ko defee ci Ziguinchor nee na wujjuwul yoon tey wujjuwu ko la te diggam ak justice réew mi c'est fini jullit tubaab moom Ousmane Sonko dootu solo te aw dàll avocat moom Ousmane Sonko jotuñu convocation bi leen di wax ne seenub client bi dafa war a wuy ji justice bi tey nee nañu moo taxit ñëpp la Ousmane Sonko tëgg wëndeel ndax ci jamono ji ñu koy séentoo ca tribunal ca la convoqué conseil municipal bu maire bu Sigicoor bi mu jiite ci réunion Ousmane Sonko ak i kàddoom ñoo nekk ci xët mu njëkk réew mi quotidien lu jëm ci layo bi war dox digganteem ak Mame Mbaye tey ji ak coowal mbës mi mu war a gi mu woote nee na ca la nañu Ousmane Sonko boycotté na procès ba menacé juge ko ne nañu ak renvoi mi ngi ciy xeeñ libération bi ne ne Ousmane Sonko boycotté na tribunal ba na décision ne dootu wuy jeeti justice bi ndax li am ci réew mi moom jàppul ni justice la banditisme judiciaire la moom borom focus 2024 di Ousmane Sonko ci moom la journal bés bi le jour xëy defub focus mi ngi ñuy waxit matuwaay yu yi ñu jël ci wàllu kaaraange ci réew mi ngir procès bi ak manifestation gi waa F24 def li ñu def ci programme xëyu ndaw ñi moom lañ doon xayma la ci tukkee mi ngi ci soleil nationale réussite 102 pour cent la ñu ci am ndax yéene ji ci programme mu xëy ndaw ñi moo ne woon créer 65 000 emplois ci réew mi objectif boobee soleil national ne nañu romb nañu ko ndax créer nañu lu mat 66 143 emplois l'observateur nañu ndaje mi ngi doon waxtaanee résultats yi tukkee ci programme xëy ndaw ñi démb la woon ca Parcelles Assainies ci teewaayu premier ministre Amadou Ba ci ngoon gi ndaje mu mag mu dajale woon mbooloo mu bari moom la ñu gis ca terrain municipal bu Parcelles Assainies ministre de la jeunesse di Pape Malick Ndour yéene kaay bi nee nañu moo mu di dajale fa ñaar fukki junniy ndaw di def na ko def na fay déclaration bu rëy bu mu jëmee ci jeunes yi sàkku ci ñoom ñu bañ nangu benn politicien di leen manipuler taxaw ci xeex kàcc ak désinformation te àndandoo taxaw ci wetu président Macky gunge ko jàppale ko ngir mu liggéey Sénégal moom ministre de la jeunesse bi di Pape Malick Ndour yéenekaay bi nee nañu sànni na fay ay xeeru rëy kii di Ousmane Sonko Amadou Ba premier ministre bu Sénégal ak kàddu yi mu yëkkati ci ndaje ma ñoo ngi président Macky Sall pareegul ak yéen la si bi ne ci xëtamu njëkk ne premier ministre Amadou Ba mi ngi dooj ji bi di leen galvaniser nee leen fu ngeen mën di nekk na ngeen xam ne président Macky Sall ku leen faale la faaleen bi di Déthié Fall borom parti bi di PRP moom la journal L'Info xëy yéen bi dañu xamal ne moom Déthié Fall teg na yoon yi mu fas yéene jaar ngir suqali Sénégal bu ñu ko fale président de la République journal Les fukki ministre mbër meneen mu sampum dëndëm ci élection présidentielle 2024 yi doon ca candidat Vox Populi nee nañu mooy honorable député Pape Djibril Fall takk na ay jaajëm geetaru wutali keroog la ko xamle l'observateur xëy na dañu xamal tiitaange ak jaaxle gu ay doomi Sénégal dund ca Burkina Faso yëral xët mu njëkku yéenekaay bi ay sénégalais la yu ay terroriste songu ci Burkina Faso ñoo ngi nettali ci l'observateur tiitaange ak jaaxle gi ñu dund bésub keroog ak jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi sant nañu leen gërëm leen yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti ci kanam tuuti Mamadou Ndiaye ak jigéenam daan